mu noon ma cere si cere ju ci reporter bi tay nag laay xam ba xam Modou Anta daan na la wax wala daan nañ Modou Anta gisuma Modou Anta waaye jabar ji lekkul naanut gisuma waa bellu tali ak ñaari tali ndaysaan Modou Anta ngi noonu mbokk yi arbitre bi ngi waaj a sifflé ndaysaan dox ci diggante Modou Anta numéro 2 ak Roubé mbokk yi Modou Anta moo la féetee càmmoñ Roubé moo la féetee ndi joor Modou Anta jiital tànk càmmoñ Roubé jiital tànk ca ndi joor ndaysaan loolu mooy garde normal ak fausse garde ñu ngi lewaatoo Roubé Modou Anta numéro 2 Modou Anta jokkaas na boog mépp na Modou Anta ak Roubé Modou Anta ak Roubé ñu ngi lewaatoo ñoom ñaari xale yi mbokk yi ñu ngi fii ci stade Diop Iba Mar Sam production moo ñu woo ndaysaan daw na jël ko Roubé jël na Roubé jël na Modou Anta Roubé jël na ko takk na ko takk na ko yegg nañ suuf Modou Anta daan na eh, daan na Roubé ndaysaan daw na Modou Anta daan na Roubé da koo takk ndeysaan Modou Anta am na ndam jëlal turandoo ba Modou Anta numéro 2 numéro 1 ndeysaan ku la tuddee doom deewul bëgg na la bëgg jikko ndeysaan macha